jëre ngeen jëf mbokk yi ñooy amaat mbégte bu baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen ci seen chaîne bu mag bi di Bawal TV ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla mu leen xaaree àjjana ñu tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu nekk ci kaso bi yàlla na fa yàlla génne ba ñu dellusiwaat suñu biir comme ni leen ko daan defalee noonu leen koy defalaatee waaye tey ba tey ñu ngi parcelle seet si fi benn champion boo xam ne macha allah moom it marqué na empreinte am ci làmb ndax yaakaar naa ne bu deful huit combat def na neuf combat am ci deux défaites ci des victoire ñu koy nuyu bu baax moom Ardo ku ne xam na ko l' adversaire de Luis Ndiago ginnaaw ba ñu ñëwee rek ñu jox ko mu nuyoo nuyu mbokk internet yi après ñu dugg moom ci waxtaan bi Ardo nuyu nan la. ñu ngi lay fay eh, di fay monde entier di fay waa Sénégal di ñaanal ñëpp ci weeru safar bii ñu nekk di ñaanal Baye Fall yëpp yàlla nañ si dajeeg tawféexu sëriñ bi ndimbalu sëriñ bi barkeeb sëñ bi waaw ah, di ñaanal murit yëpp ak ñëpp waa Sénégal ñëpp daal. waa di fay mbokku internetu Baol TV di ñaanal waa Parcelles ñëpp ñu si am làmb yal na leen yàlla may ndam sama grand yeeg ñëpp daal ku luuxum rek waaw yal nañu yàlla dooleel ñun waa Parcelles daal ñu jàpp di dóor di daan rek hmm, ak suñ Fallu mais saison bi ñu génn noo ko gisee. waaw saison bi neex na amoon na ndog-ndog mais xam nga rek yàlla ak ay mbiram. mujj nañ si bégal mi mujj nañ si bégal suñu xol yëg nañ làmb daal dund nañ làmb si saison bi lu mu xat-xat-xat waaw am na yu ñu ciy mettitlu mais tamit mënut ñàkk. loolu ak ànd ñoo bokk ñoo ñoo yem quoi mm-hmm. gisee CNG ak ni muy doxee liñ ci war a yokk ak liñ ci war a wàññi. CNG eh, daa mel ni ñoom amuñu kii quoi comme ça amuñu ay yu passé wala amuñu ay souvenir quoi. Mm. waaw parce que làmb boo ko xamee dëgg-dëgg comme li ngeen doon wax sànq dafa am solo muy wàllu dëkkante bi. Mm-hmm. doo xool liy dundal làmb nga dindi ko non non da ngay xool nañ koy defee ba li ñu nga bañ mu feeñ si muy violence bañ si feeñ mais doo ñëw rek supprimer benn affaire loolu du yoon quoi parce que làmb daa am lu koy dundal ba mu yegg si fii daa am loo xam ne dañ ko dañ ko baaxoo xam si làmb ay dëkkante dañ ko def euh, kii nu mu tudd euh, nu tudd mbër boobu di yëngal rek ca Réméré waaw Mor Kankang fee stade mm-hmm. indiwu ma fa woon giroo laa euh, moo ma fa indi woon mm-hmm. mais dama métti lu si nuñ ko def mm-hmm. faralu ko mais dama métti lu suñ ko def ndax acteur la ndax policiers yi ñuy jël war nañ leen mën a tàggat ñu xam lan la làmb laaj mais amaana ñoom bruit la ñuy bañ te làmb ak bruit ñoo ànd. waaw du ñoom ñooy star yi mbër yi ñooy star yi parce que ñoom la nit ñi dagg seen tike ñëw seet euh, fekk leen si làmb ku nekk ak la la si neex mais ku kooku noonu dagg ticket respecté ko quoi. Mm-hmm. respecté ko parce que am na lu mu bëgg si làmb bëgg na ko gis mais may ko ko. ki ñëw tamit pour bëggal ay supporters am moo xam nan na koy defee mais xoolal ba moom mu def ko te du déranger maanaam gaañante du si am violence bi ñu si wër mu bañ si am. mais loolu ci làmb la bokk ak tamit comme li Giro di wax toloore ñu jéggal mbër yi te xam ne mbër yàlla toppewu ko dara. Mhm. kii rek moo ñu toppee dara CNG rek. waaw comme li may wax. Mhm. li laa waxoon nee na mbër mi daa ñëw fële di fa yëngal nekk kenn du yëg tey si dini. Ah. ku nekk wax ku nekk wax ñu ne mbër mi de mooy loolu. Mandela la woon mais bañ ne ko waa CNG woo ñëw dafa takk ay bagages yëpp dem. dem parce que tellement que ñun choc bu ñu teg ñoom. dañu teg choc quoi te du noonu. day mel ni que ñoom ñu sax mbër bu yaru quoi dañuy bëgg mbër bu indiscipliné pour ñu mën a coppet sa xaalis te li ñuy coppet si ñun du dara ndax boobu ba léegi amul fenn fu mu leen yóbbu am ah, ñun tamit amul fenn fu mu ñu yóbbu nañ xool ni mu gën a naay see ñu def ko bu dee bu dee tëkkante bi sax bokk dañuy dañuy dañuy sa combat xam ne kii kat ñii ak ñii ñooy adversaire am ñu dugal benn numéro pour moderniser quoi dugal benn numéro ne kan moo bëgg a tëkk. Mhm. kan moo bëgg tëkku diw. ñu sélectionné ay trois personnes wala cinq person ñu ne journée tay bi kii lañ may pour mu ñëw yëngal. kooku ñëw def show après dinañ xam ki mën làmb ak ki mënut làmb. après ñu ñey laaj sax ni ni diw dafa war a ñëw comme yaaw jaal loolu muy def noonu dafa rafet dafa neex dafa neex ci làmb daa am ñoo xam ne billaahi amuñu mbër yaaw jaal la koy seen waaw lu mu làmb ji di rëy ku nekk ak daa am ku ko ci daaneel ñu bàyyi gars yi wane seen bopp tamit ndax loolu rek ay làmb daanante bi du dara ba ndax làmb bu ñu waxtaan bi ñu waxtaan bi ñu waxtaan ba lëndi ba fàtte nañ ko ñu ngi si leneen mhm. li xewoon ci làmb ja la ñuy wax mais kenn du wax ay kii wa daan ak kii wa daan ndax ñëpp xam nañ fa mujjee waaw ñu ngi jéggulu man man li ma jaaxal mooy képp kuy liggéey rek bu bu bu demee ba retraité am na foo xam fa lay dem jël xaalisam di fayeeku mais mbër ëllëgu mbër bi lan la lan la ko CNG préparé loolu loolu CNG war na ci wax loolu jàngoroy Sénégal la du jàngoroy mbër kase mhm. loolu jàngoroy Sénégal buñ nee mbër kase day mel ni mbër ñi kase fa nekk sonn fii du mbëri kase sonn gars yi dañuy wax beral ñu loxo ne mbër bu màggatee lu muy dundee ak yooyu ñun ñëpp suñuy papa yi problème boobu lañ am mhm. problème boobu lañ am quoi loolu du problème mu mbër problème mu Sénégal te làmb métier la comme métier yëpp mhm. métier la comme métier yëpp dañuy waaw métier bu métti bu bu métti bu noble du mbër day servir ku rafetul xol mënoo ko doon billaahi dañuy wax si punkal yi bu des fois ay ay signe day am wala wala nit nit ñu bon ñu dugg fa ba nga gis benn mbër di waxal beneen mbërëm euh, safaan mais boo xoolee ñoom ñëpp ay xol yu rafet la ñu yor ñu si kaw nat laa lay wax ndax dangay jël modèle ñoo xam ne ils sont réussir nañ ba pare ñoom ñëpp ay xol yu rafet lañ yor ay xolu jamaa ñi ñi leen jege nit ku dem ba mu jaral la dee parce que seen da ngay xool si si ñuy topp ñooñu pare nañ pour tout mhm. kooku am na fi mu la teg te boo meloon nee li loolu doo ko am kon noonu nañ xippi te toog xool xam ne ñun du ñu ay dof mhm. su ñu bëgg-bëgg nag moo ñu sonal làmb lañ bëgg ku ñu ci nax dañuy jël mais dafa jot ñu arrêté si tous les domaines nag mhm. ñu arrêté lu nekk ñu teg ko si yoon quoi waaw di ko waxtaanee surtout ñun ñu si am cër doo tëju si benn néeg xaw ma loo leen fa waxtaan génn rek ne kagul yi kagul yi ñu lay xaar feneen nga génn kagul Cheikh Baara Ndiaye laay woo sax moom muy suivre làmb pour wax si. Mhm. te yàlla tax nañu waxal ci làmb ji mu gëstu si ndax moom yàlla may na ko fa fasaaxa boobu noonu. Mhm. ndax li muy wax lu nekk da lay tojal ndax man li ma bëgg a wax nii. Mhm. mi ngi sama xel mi ngi sama xol. mais mënu ma ko mënu ma ko toj comme nit ñi ni ñu mën a comprendre. yoroon na la kuy Cheikh Baara Cheikh Baara Ndiaye borom jëf. làmb lan Cheikh Baara Ndiaye mii. ay ay eh. ay sëriñ mënuñu see wax de. mën nañ ci wax yow kooku di borom xam-xam bu mag. mbër waaw yow saa yu mbëri tarixa eh. tarixa à part la de. non kooku du ay kii kooku euh, day wax si comme société bi nii. comme culture générale nu nekk structure bu nekk nu muy doxee maanaam comme lii xew léegi da ngay gis da ngay gis koo xam ne day jëlee xaalis fële ne kenn yëgul tinul te suñu xaalis la ndax lu ñëpp bokk la dem dugal ko fee foog ne kenn sibul gars yi dañ koy toj dañ koy toj lettre par lettre lii nga defaree tali bi lii ak li da nga ko dóor mu leer naa nañi loolu noonu dafa war a am ci làmb ji dafa war a am gars yu ko révolutionnaire génne ko di ko def ëpp ñu ñu xam-xam mais actuellement nous sommes des acteurs ñu ñu ngi ci biir Euh, am na nit ndaw bu nekkee ci yoon di dem du bëgg gersu quoi du bëgg ay coow ak yëpp da koy moytu mais maanaam dafa jot ñoom ñu ñu diriger ñu xool liy intérêt mbër yi làmb mbër si gën a sonn mbër bi am na lu ñu koy topp promoteur bi kenn toppee ko dara promoteur bi léegi day ñëw tëgg làmbam di wax CNG li li li mu bëgg si journée te CNG moo waroon pare tëgg tëgg lu leer naa ñu loo xam ne moom moo leen di wax fan ngeen di yem ak fan ngeen di tàmbale bi passé euh, dégg naa ni sax euh, suñu papa Gaston dafa ñëw ne sëriñ yi sax dañuy sol blouson wala ñu dagg la loolu du yoon du yoon ñàkk waxtaan du yoon da yoon quoi du yoon làmb ay tettal la ku nekk ak muy ñëwee ku nekk ak ba nga fonk moom ngay jël indi ko ci làmb ji ndax làmb dafa am ay couleur doone tu blanc la làmb du yëfu tarixa du du du affaire de Barça blanc blanc mooy dox ak yi non non affaire de làmb la affaire de njaxas la affaire de ceddo la waaw ku nekk am na si dara quoi ñaxasu Baye Fall la. dëgg la ñu gis keroog journée bi nga génn sa digganteeg euh, Saba ñëpp jëloon favori bi jox ko Saba keroog Ardo li mu bëre. waaw loolu du gulet si man du gulet si ñun quoi pour affaire de favori yooyu yooyu xëccoo wuñ ko ndax euh, comme yii rek yi xew léegi yi nii moo waral maanaam pour def bruit yomb na mm-hmm. mais pour doon li ngay ñoddi moo yombul ñun fii nii suñu ñun fu ñu juddoo quoi comme pied parcelle mhm. bon lieu bi waxuma banlieue bi de bon lieu bi wax fii boo fi bëggee doon li nga bëgg a doon mhm. boo fi tegee waga du daaw boo fi tegee waga mhm. non du daaw bu doon waga rek ay fay fii ñun ñëpp ay waga la doon mais fii waga fay fi quoi fii xam nga la moo fi fay ñàkk jëriñu yam si li nga moom waa jox ñëpp mag ndaw ñëpp cër loolooy fay moo tax nag ñun ñu bindoo nii bañ ñuy woowee ay français mais duñu ay français ay kaana bamba lañ ñun travail lañ xam ñun waaw ñun ay kaana bamba lañ duñ tooñ kenn mais ku ñu wooku ñu furi la ba dag ko mais nga ci jóge nga ci Saba déggal jóge nga ci Saba waaye yaa ngi jëm foo xam ni sa diggante Liss Ndiago am nga combat bu métti est xam nga loolu waaw loolu combat la rek comme combat wax dëgg fa yàlla combat bu metti la mais man sama combat comme ni nga ko waxee sànq sama combat bëri naa ko ba pare. Mhm. mais combat bi dama koy jox waa parcelle. man li ma war naa si nekk. combat bi combat gars yi la quoi. yaa ngi dégg waa kii mën na wax si combat bi ndax. li mu laaj combat gars yi la. waaw combat yi la. comme gars yi nii mën nañu wax si combat boobu mais man aw ma lu ma siy wax quoi lu may confirmer laa bëgg. toujours oui. te confirmation bi ci Liss nga ko bëgg a jaarale. non du Liss kese am na ñu bëri ñu si ñu si mhm. parce que yoon la quoi yoon la. ñu ngi ñaan yàlla defal ñu si ndam sedd guy di ko ñaanal suñu suñu gaa yëpp waaw yàlla ñu yàlla defal ndam. mais avant Liss proposé woon na la yeneen adversaire wala. waaw non ñun ñu ngi doon xaar rek ñu ngi doon xaar ndax ku nekk a ngi doon woote ku woote rek ma na leen woo leen suma manager assisé di ko nuyu au passage di nuyu sama gaa yëpp wax dëgg fa yàlla ku lim rek juum. Mm-hmm. particulièrement à Lat job euh, Waly xam nga waaw njabootu Lat Diop gépp rek ma Cheikh Omar Mbaye ci bi Kayta Omar Omzo bu Garga Mbossé xam nga di si woo sama grand sama xarit sama lépp xaadim naar ñoo xaadim Dieng waaw di si woo xaadim Amar borom sob 222. di nga de di nga ñëw di nga ñëw ci woote bi. mais waxal sa digganteeg Louise. combat boobu est-ce que dina yomb. pourtant li ma la wax déggoo ko de. du hmm. man maa siy wax man sama combat bëre naa ko ba pare. mais mais xanaa am na loo yóbbante Liss loo ko war a wax. combat wu waa parcelle la waa parcelle dinañ ko ko wax comme que ñoom ñu ngi si TikTok bi. Hmm? gars yi dinañ leen tegal quoi. <laughs> ñoo nekk ci TikTok bi. <laughs> pula pula wata wat noon <laughs> non mi waɗat noon mi waɗat noon ah ñu tiktok tok tiktok waaw ñu liis moo nañ ci tiktok bi di wax pël laa moo tax wala pël bu ñuul bi ah liis moo bi di wax liis ne ci entraînement yi nga ne ci tiktok bi non xam nga rek mooy loolu quoi waaw mooy loolu mais nooy préparé combat bi waaw comme combat yëpp comme li saa waay si ceeb bu xonk bi gisoo ñu ngi si ceeb bu xonk bi waaw di si bay suñu waar daal lum ñu may ñu jël waaw loo koy yóbbante waxal ak moom mu ngi lay xool yi dañ ko yóbbante amoo lay wax ak moom non non yàlla xam na ñu ngi koy ñaanal wér moom dañoo bokk sëñ Fallou ñu ngi koy ñaanal si màggal gi ñu màggal si jàmm ñëw si jàmm luñ fa waaye ñaan suñu borom may ko ko ba mu des moom <laughs> ba mu des ba mu des euh, daan ma yàlla ma yàlla may ndam keroog dama dégg Laurent Ndiago kii micro bi ne ko grand bi am na combat mu ne waa benn booy la am mel ni dan la xeeb fu mu ko waxee Iba la ko wax man yow la waxal kan la ko bi am na combat mu ne ma benn booy la am mel ni daf la xeeb moom Laurent grand am na combat digganteem ak Ardo mu ne ma benn booy la ko wax waaw wax damay laaj li ma la waxee wax naa la ko yow loo ko wax loo ko tontu après. grand bi am na combat mu ne ma benn boy la ah, merci yow kay mooy boy bi. moo jiitu question am moom. non nee naa ko da nga xeeb ardo moo tax nga naan ko benn boy. ba ne ko grand bi am na combat rek. waaw noonu mooy réponse bi grand bi am na combat. dégg naa ne am na combat. parce que boobu yëguma seen combat taxaw na yéen ñaar. fii du Porto Rico. na bàyyi ji koko bu bëggee ndoxu koko. looy looy tàggatoo. waaw mooy loolu di sant ñëpp rek. waaw di sant ñëpp di gërëm waa parcelle bu baax a baax gis nañ ñi taxawoo ñun ñëpp. Mhm. wax dëgg fa yàlla. waaw di ñaan yàlla seytaane bañ a dugg suñu diggante quoi parce que xam nga rek lii dafa neex. Mhm. ñoom gars yi daal waaw ay borom baax lañ daal. mais sa diggante sa diggante Giro. Hmm. yaakaar naan bokkoo leen écrire. kii kii sama papa la. kii bokkoo leen écurie di bokk entraînement seen oh, diggante bi ngelam kañ nga nekk dóor dóoraat ah la ñun ñaari écurie lañ nekk ah ñaari kii des fois damay dem ñu ne ma mu ngi jàmbaar lay wax ma dem jàmbaar ñu ne ma mu ngi mu ngi golf kon 100 pour cent bi daal mooy loolu. non fii fii du 100 pour cent de fii promo dafa am 1000 pour cent. 1000 pour cent Illimix la Illimix mooy daw waaw suñ Fallou di woo ñëpp rek. Bira Sène lu ma koy waxati. waaw nay waxtaanee affaire waaw te te te ba mu ba mu mayee. waaw. waaw Bira Sène su ko wax sunu nijaay jooju. di ko wax maanaam bu naree ñëw rek jël règlement am teg day métti comme affaire kagul yeeg yeneen ak yeneen. Mm. affaire dañ ko war a waxtaanee. Mm-hmm. parce que le mot dialogue c' est un entretien entre deux ou plusieurs entre deux ou plusieurs personnes. xam nga c' non pas pour convaincre mais plutôt pour reconnaître l'existence et la valeur de l'autre maanaam ñun dañoo war a xam suñu cër quoi ñun dañu si war a jàppale xam nga rek. ñun Giro foo jàngee. fii maag pël bi ñoo boo école Ogo Diop. ban classe ngeen bàyyee. ñun troisième. ah pour la. waaw ñun ay kii lañ ay élèves xam nga la moo tax mu bàyyi prend la porte. prend la porte mu dem dindi porte bi. donc ña ñàkk dégg français moo tax moo koy tooñee. déggal prend mooy lan eh, prend Franc mooy lan. man mooy jëlal mooy jëlal. Franc la porte saa waay dem wekk porte bi. wekk porte mais ñoo na ko Franc jëlal kay. mais sax mais l' intention détermine définition la définition. Hmm? oui. bien sûr am na problème mbër mu jàng la dajal. Badou <laughs> ñi amaat mbégte ak contentement ñu ngi tàggu gars yi di leen wax dig daje ba beneen yoon incha allah jaajëf.